هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير waxe woon léegi dañu ci ànd ak Serigne Moussa Dieng Serigne Moussa mën na yegg si defal ñu hommage boobu ci sëriñ Mor Jenn waaye itam sëriñ Hamzatu waaye itam soxna Baali Maymuna moom nag di koo xam ne itam dootuñu ko présenté ci jotaay bi xam nañu ko bu baax kon sëñ Moussa gi bismillah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 xam ngeen ni ren troisième édition bi dafa tombeek ñu am ay perte yu mag ci ay kilifa yoo xam ne marke woon nañ jamono surtout yoonu murit nekkoon fi ak ñun te seen dund amoon njariñ lool ñu ni ñu defal leen hommage fàttaliku leen ñu bëgg lu tollook 3 ba 4 minutes yoo xam ne dañuy def silence ginnaaw bu ñu amee ndigalal kilifa yi ñu jàngal leen ginnaaw aouzu billahi min asheytaan rajim ñu julli ci nabiyal mustafa sallallahu alayhi wa bu ñu noppee ñu jàng ñeen fukki ixlaas euh, tëjee ko julli ci yenentu bi sallallahu alayhi def ko seen addiya bu ko defee li ñuy tënk ci ñoom a néew ñu jàllale ko doog dugg ci liggéey bi ci jiitu te nekk ci sëriñ xamsatu mbàkke sëriñ xamsatu mbàkke di doom ci maam ceerno ibrahima faati borom daarul moxti mi nga xam ni moom la ñu tuddee tey troisième édition bi ñu xamle tuuti ci kan mooy sëñ sa ñu ni sëñ am sa way juróom wu góor kenn laajtetu ko mooy maam Thierno Ibrahima Faati waaye way juróom wu jigéen bàyyi ko ci kër gu sell di kër sëriñ Masamba Diop Cham mi ngi tuddoon soxna Faatu Daam Diop soxna Faatu Daam Diop nekkan doom ci sëñ ma Masamba Diop Cham ñu ni sëriñ xamsatu moomu mu ngi dar tàmbalee jàngum alxuraanam ci kër way juróom kër maam Thierno Ibrahima Fati ci mag mu sell mu baax moo xam ni maam Thierno moo ko tegoon foofu ñu koy wax sëriñ Moussa Ka foofu la dale jàngum alxuraanam waaye mi ngi eggalee ci ndijaayi boppam di bàyyi sëriñ Jóob bàyyi sëriñ Jóob di doom ci bu tedd bi nga xam ni moom la dénk liggéey bi di sëriñ Xaadim Mbàkke te bokk ci ñun ndax sunu doom bàjjan la ak rakkam ya bokkal liggéey bi yépp ci góor ñi ak jigéen ñi ngi ñaan liggéey boobu des ci seen loxo yal na leen yàlla may kartan bañ mën ko àggale fu kawe soon njartu bi jaay sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke xaadimu rasul ñu ni ñaareel bi ci ñi ngi defal hommage di soxna su tedd di soxna baali bint soxna Maymuna Suxra soxna Baali Mbàkke yaakaar naa ne ñu bari ci ñun xam nañ ko waaye wiñ ñi ko di doom ci sëriñ seex xawa balla Mbàkke ibnu borom daaril moxti ba tey nekkoon soxna soo xam ne it ñu bari ci nit ñi gënoon nañ koo xamee ci bernde mu nekkoon soxna soo xam ne dundam gi yépp ci bernde la ko def rawatina ginnaaw way juram soxna Maymuna euh, ay soxna yu jigéen yu bari mu donn ko ci way juróom rafetaloon ab yaram buñ demee ba ci documentaire bi sax dana gën a leer waaye daal li wér te mooy jigéen ju sell la woon jigéen ju yaatu la woon jigéen la joo xam ne bi ko way juróom bàyyee ak liggéey bi fexe na ba yóbbu ko fu sore sore sore sore ba teg ko ci ay loxo yu leer ñu ni moom it bokk na ci ñi ni defal hommage di ko fàttaliku yal na yàlla yéege ko ci maqaama yi way jur yu sell ya te njaboot gam fa bàyyi ci te ka nekk ci bopp ba di sëriñ Abdul Ahad Mbàkke Gaynde Fatma ak rakkam soxna astu yàlla may leen gudd fan ak wér ba liggéey boobu ñu mën ko eggale fu sori ñu ni ñetteel biti ñi ñi ñuy defal hommage di sëriñ Mor Jenn sëriñ moor Jenn di way jur ci ñun ndax ku nekk xam na ni doom la ci sëriñ moor Jenn bu Daaru Paam sëriñ moor Jenn bu Daaru Paam nag kenn du ko laajte fii ci njenne ndax bokk na ci ñi Seex Isaa defaral boppam ba wiñu ko amul mbokk ak Seex Isaa moom moo nekkoon xalifaam wàcc bu yàggul way juróom wu jigéen mi ngi tudd soxna Maryaama Luum moom it ñépp xamoon ko ci mbaax ak woyof ak mën na xettali jaam ñi lool ak wàcce boppam dundam gi yépp it ci ak taalibe la ko jeexal takk imaasam ci documentaire yi jàllan gisoon ngeen ko ci lu bëree bare bëri ci histoire ci diggante maam Cheikh Aïssa Diène ak way juróom Serigne Mor Diène moom moo ñu ko doon baaxee ñuy ñaan moom it yàlla sunu boroom jéggal ko te yokk ay leeram te barkeel lim fi bàyyi te taawam boobu mu fa bàyyi ñu koy wax sëriñ moor Jenn ak ay rakam yépp sunu boroom kàrt nañ leen ba ñu eggalee yen bi fañ ko bëgg a eggale te bañ a am benn gàllankoor loolu daal ci gàttal la ma kuréel gi santoon nii naa ko jotali xam naa la ca des documentaire bi ñu leen di war a présenter incha allah dana am lu ci leer ñi ngi ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala defal ñu jàmm defal ñu najaax bi jaay sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam barkeb xaadim rasul barkeb seen Isaa Jenn wasalaamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu Serigne Moussa Dieng ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm ba tey rek ñu dalalaat yeneen kilifa waaye ñu bàyyiloo xel ñu ni waa kër Serigne Mor Kane ci njiital Serigne mbay Dieng ak sëriñ Mor jenn mu Serigne Ada ak Serigne Mor Dieng jenn teew nanu ci jataay bi nag wax ni sëñ Maodo Mountakha ji nga xam dañ na ñëpp dem jàngi loolu tam suñu mbokk yi soxna yi am nañ ci ay cër yu kawe ndax waa kër yonte bi alayhi salaam boo jëlee sayyidatuna Aïcha wala nga jël Ummu Salama liggéey nañ ci lislaam lu am solo ndax sayyidatuna Aïcha bu ne la nettali na ñaari junniy hadis ak ñaar téeméer ak fukk ci jigéen kon da xam ne jigéen itam desul ginnaaw ci ci ci ci xam-xam te dañuy wax ne jigéen itam bu jàng bu yëpp xeet woo xam ne bëgg nga mu tegu ci aw yoon bay boon nga fexe ba soxna yi jàng ndax ñoom buñ jàngee lépp baax ndax al umu madrasa isa aadataha aadata shaban tayibal araq jigéen mooy li nga xam bu baaxee rek peuple bi lépp baax kon appel boobu nañ ko dégg bu baax te jéem ko dundaat nafaraat ko bu baax te xam ne àddina dara munu fee sotti te amul xam te jaarul si xam-xam ndax moo tax borom waykat bi ne bil ilmi wal maal yeb na naasu mulkahumu lam yub na mulkun jeex jahlin wa laal amul genn nguur koy gis ci àddina mu taxaw te xam-xam nekku fa wala alal nekku fa waaye lépp loo am itam lu muy yaatu yaatu yaatu boo jëfandikoowul xam-xam bis mën naa ñëw nga ñàkk ko kon kon ndaje mi liñ siy jànge ci ak gàttal rek mooy ku fi jóge nanga nga amaat beneen taxawaay ci xam-xam na nga amaat beneen jubluwaay ndax Serigne Mountakha na ñëpp dem jàngi la wax. am na góor gu ma woo barki démb nii loolu la ba mu ko déggee ci Serigne Mountakha waa këram ñëpp la dajale ñuy jàng ba may ne mu ñenn ñi xaajal nañ tasawur si xaar ñenn ñi jeexal nañ ko. kon loolu xam-xam jombul kenn na si ñëpp góorlu sa fexe ba mu dëppoo nag ak ay teggin ndax xam-xam lu mu bari bari te amul ay teggin jëf ji mën naa bari waaye mën naa ñàkk njariñ lool yàlla nañu suñu borom tabaaraka wa taala fayal kilifa yi bu baax te mayit ñu ñu di leen xeeñtu te mën a jëfe seen ay ndigal téere bi ñuy wax itam ñu ngi sàkku ci mbooloo yi fu nit mën a nekk rek nga toog incha allah daa ñu la ko jox buñ la ko joxee itam ñu ngi sàkku ñu topp ko toppin woo xam ne wu wu teey la ndax sosuñu si dara lépp alquran la ak hadis ak waxi sëriñ tubaa ak ay ay ay xista yuñ mën a teg baaraam na si ñëpp jublu te bàyyi ko xel tañaan suñu borom tabaaraka wa taala di ñu defal ak dégg ak topp di jéggulu bu baax di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Serigne Mbacke Sourang ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm ci leeral yu am solo yi nga xam ne indil nañu ko ci sëriñ Isa ak xam-xam maam Thierno Ibrahim daamal daaru ni ma ko waxee rek téere yi egsi na incha allah xam naa léegi ñu ko war a séddale ñu seddale ko waaye day mel ni ngir njëkkante ak waxtu wi ndax ni ma ko waxee tout temps moom du xaare dañuy daal di indi suñu xarit suñu wóllëre di ko xam ne itam dafa bokk ci liggéey bi at mu nekk ñu koy ànd ak moom muy sëriñ Gana Messere maxtar di borom xam-xam di koo xam ni itam ku ñu ràññee la ak bëggam sëriñ bi kenn weranteetu ko ay yëngoom yépp itam daf ko yamale ci sëriñ bi tàmbalee ci moom yam ci moom ba am benn tawféex boo xam ni sax mën nañu wax ni suñu borom defal na ko ko mooy fu ñu ko tuddee rek xel yi ci sëriñ Tuubaa dem loolu moom tawféex la gu ko suñ borom jagleel ñi koy ñaanal bu baax a baax yàlla sàmm ko te aar ko kon sëriñ Gana Messere Maxtaar moom la ñuy àndal léegi léegi mu andil ñu waxtaan diggante a Sayxu Isa ak maam Thierno Birahim Ndaamal Daaru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 jaa